sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey bi xidmatin qad baayahu aljalila inna allazina baayahu rasula bi xidmatin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 hasbunallahu wa ni'mal wakiil assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk jullit di nuyu jullit di nuyoob lislaam di nuyoobu sell waaye ci noonu lañuy ñaanale sunu kilifa diine yëpp sunu borom may leen gudd fan ak wér te kàttanal leen taxawu leen ba lépp li ñu naalal ci yoon lislaam ñu ko ca nam gën a rafete di ñaan suñu boroom subhaanahu tabaaraka wa taala ñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njëggalam mu mel ni nag dañuy dellusi ci sunu jataayal yóbbulu ndaw ñi muy jataayal xam-xam waaye di jataayal fàttalikonte comme niñ ko baaxoo di waxee suñu bàyyee xel nag suñ jataay yi mujj ñu ngi doon jàngale téere zaadu zawi taxallumi mu téere bu am solo jataay bi mujj nag ñu ngi doon jàngale yéene ji nga xam te ni moom la nit ki war a yéene ci buy sàkku xam-xam ngir xam-xam boobee nekk xam-xam boo xam te ni xam-xam bu koy jariñ lay doon tem bañ koo sàkku ngir jublu nit ñi wala sàkkoo làq ay àddiya ñu ne loolu kat bu dee yu mel noonee moo tax na xam ne xam-xam boobee du jariñ dara lu sànk ko kon nag mu bëgg laa wax nag ban jubluwaay nga war am booy sàkku xam-xam ngir jariñu muy de am solo lu jar bàyyi xel moo tax mu ne fal taqsidu na ngeen jublu arbaxatan ñeent inda ibtidaa taxallumin fa sàkku xam-xam nga li kay tafuusu ngir ngeen am bil hudaa ci ak jub mu ne li kay ngeen texe bil hudaa ci mu ne boo leen di sàkku xam-xam kat na ngeen jublu jubluwaay boo xam te nii sàkku xam-xam boobee dingeen ci jariñu ci àdduna ak àllaaxira jubluwaay boobu nag mooy ban jublu mu ne na ngeen ko tënk ci ñent yii ci boo leen di tàmbalee sàkku xam-xam na ngeen yéene ci xam-xam boobee tënku ci ñeent yi may bëgg a wax mu ne awaluha aji njëkk seen alxuruju mooy génn min dalaalin ci ak réer wasaani ñaareel ba nafon xalxi zil jalaali mooy jariñ mbindeefi yàlla mi nga xam ni mooy aji màgg saalisaha aji ñetteel seen al ixyaa u mooy dundal lil xulumi ñeel xam-xam raabihuha aji ñeenteelu seen alhamdu mooy jëf bil maxluumi ca lañu xam mu ne kon képp koo xam da ngay sàkku xam-xam ñeent yii na ko bàyyi xel na nga sàkku xam-xam yéene ci génn ci ak réer nga xam lu génn ci ak réer ndax ak réer kat képp koo xam da nga cee nekk te génnoo ci kat fam lay jëmee du fenn fudut sawara ndax képp ku réer rek sawara moo lay gindi ginnaaw boo xamee ne gindi ku kon nag sàkkul xam-xam ngir génn ci ak réer tàbbi ci ak ci ak leer wasaani ñaareel bu mu ne mooy nga fexe ba xam-xam bi nga yéene cee jariñ mbindeef yàlla yi kon nga yaa ngi sàkku xam-xam waaye yéene nga boo amee xam-xam boobee nga jariñ ci mbindeef yi nga xam te ne danga leen taree ci xam-xam kon loolu lu am lu am solo la saako xam-xam ba pare xamle ko ñi nga xam te ni yaa leen tane kon loolu yéene ci booy tàmbalee saako xam-xam lu am solo la mu ne wala ñetteel ba nga yéene ci dundal xam-xam dundal ndax loolu it lu am solo la sàkku xam-xam ngir dundal xam-xam nga xam ne xam-xam day des te xam-xam feeg mi ngi des ci kaw suuf rek. jëfe xam-xamit di mën a am kon naga nga xam-xam ngir dundal xam-xam ne ñeenteel ma mooy nag nga sàkku xam-xam ngir jëfe loo xam te nii kat moom la suñu boom sant nga jëfe ko nag nga ko war a jëfe ndax loolu lu am xam-xam la ndax xam-xam ab jumtuwaay la jumtuwaay la ngir jëf jëf ju baax ndax suñu borom kat bi mu bindee doomu aadama yi daf leen sant ñu jaamu ko waaye bi mu leen santee ñu jaamu ko it waxu leen ne leen jaamu leen ma nu mu leen neexee rek noonu lañ ko yëgee déedéet dafa ay ndaw ci doomu aadama yi ngir mu xamal leen nan lañuy jaamu yàlla kon nag sàkku xam-xam ngir jëfe jaamu yàlla gi la suñu borom sant waaye jëfe ko nam ko bëggee lu am solo la ko nan ko bëggee loolu lu am solo la kon xam-xam njariñam mooy jëfe xam-xam jëf tamit kon bu amul ànd ak xam-xam dalay sànk kon kon xam-xam te jëfe ko moom lu am solo la dañ naan sax lu mënta ñàkk la ci jullit bi mu ne kon ñeent yooyu moom la nit ki war a jiital ci buy tàmbalee sàkku xam-xam mooy fas yéene génn ci ak réer tàbbi ci ak leer waaye fas yéene cee jariñ mbindeef yëpp fas yéene dundal xam-xam waaye fas yéene jëfe loo xam te ni xam na ko mu ne li sayidi ñeel sama sang ba zaruuxin mooy azzaruuq bayti naa ñaari bayit huma ñoom ñaar yu rabbiyaani yooyu danañu yar man képp koo xam te ni xawaa làq na tafahuma ak digg man te mooy ka nga xam te ni talaba sàkku na alxel ma xam-xam yu baax yi ngir puukurenteeg alxulama way sàkku way way am xam-xame mooy boroom xam-xame bi xel mi xii ca xam-xamam ba aw li maari wala muy dóoranteeg ashufaha way dese ya wala muy duurante koy dise aw li yanaala wala ngir mu am aljaaha daraja xindan naasi fa nit ñi baa kon mu dellu bi naari ca sawara ab delluwaayam mooy sawara wax moom zu iflaasin boroomu perte mu nekkat am na wax joo xam te nii kat ñaari bayit la yoo xam te nii dina yar képp koo xam te nii aji am dégg-dégg nga te ñaari bayt yooyu ku ñuy wax zaruq sayidi zaruq ñu ne moo ko wax ñaari bayt yooyu nag képp ku ko liir te nekk boroom dégg-dégg dina la yar ci lu bari ñaari bayt yooyu nag mooy dafa wax ni képp koo xam te nii yaa ngi sàkku xam-xam ngir ëpp lenteeg puukarenteeg wooy xam ya ci xam-xam boobee wala nga sàkku xam-xam ngir di dóoranteeg way dese di yoranteeg ñi nga xamte te ni dañoo dese wala ngay sàkku xam-xam ngir am daraja ju kawee ci nit ñi nee na loolu képp ku koy def na xam ne ab delluwaayam du fenn fu sawara te moom na xam ne moom moom mu perte na perte goo xam te ni perte gu rëy la ci àdduna ak àllaaxira ndax sàkku xam-xam ni mu mitee ni mu jafee nit ki di ko sàkku sonn ci lool yéenewu ci dara lu di weranteeg ëppalanteeg way xam-xam yi ak bëgg nit ñi jàng wuti am daraja ju kawe ci nit ñi nee na loolu kat gépp koy def na xam ne perte na te ab delluwaayam bu fenn fu dul sawara kon ak mujjam sawara rek lay doon kon nag lu jar xel la ci nit ki sàkku xam-xam li muy def ni mu jafee mu fexe ba sàkku ko ca anam ba rafet fexe ba sàkku ko ca yéene gu sell ngir fa yéene cee jaamu yàlla ngir bu ko amee ak bi ko amul lépp yéeneem joojee fi mu moom ko ci ak jaamu yàlla kon loolu lu jar bàyyi xel la kon ni ñu ñaan suñu moom dafa ñu dégg ak topp loolu ñu sutura ma ñu gudd fan ak wér defal ñu xéwal yu bari te barkeel noonu lañ koy ñaanalee képp koo xam ne yaa ngi faral di teewlu jataay bi ci biir réew mi ak bitim réew di la ko ñaanal suñu borom defal la ko ci barkeel bi yónnent bi sallallahu alayhi wa kon dañuy wàcce kàddu yi di leen jox dig daje ci beneen jotaay ak seen émission yóbbulum ndaw ñi waaye muy jaar fii ci Murit TV muy seen bu am solo boo xam te ni dara yitelu ko lu taxaw diine lislaam ak xam-xam kon yàlla nañ suñu moom defal digg ak topp ñu fekke ko jataay jataay yu baree bari te tal ko te am kàttan bi nga xamante ni nañ ko fas yéene jëfee ko suñu boom bëggee in uriidu illa al islaaha mastata'tu ma tawfiiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa